nga xamante ne nii seen jàmm gën nekk biir jàmm ku mel ne Ousmane Sy ak xale yi jàmm xarit di suñu frère nekk aslem ku ci mel ne Pape Demba Guité Kaolack directeur Sénélec ñu ci xam bu baax du woo Ilimane di wax combat bi combat la combat di woo ñi nga xamante mooy ministre des sports di woo président rappel ñi nga xamante ne nii moo ko tey ak commune Seydou di santaat waa Dakar Buzz ak waa TFM ak ñëpp rek ñëpp rek. waaw commencé leer lu nga ne lu lu si ta nekk sooba ca ngoon nekk ceeg moom góoram a si bu doon nit ku ñaan ki ñaan doon nit ku baax olof Njaay nee na bu la nekkee solom na ko gërëmee joy sunu mbër mooy picc ramatu ci làmb ji picc yi mooy picc ramatu Siteu ba mu doonee picc ramatu ba léegi ñu ngi koy booleeg ay pitax ay pison di ko booleeg ay baaxoñ di ko booleeg ay ceeli ay njugub ci gën ndaw xanaa ko bii doon tan nan ko boole dé gooma dee mais moom la réew nee naa ko grand place amutoon te yaa indiwaat grand place mais faral tan bi salade kenn du ko rosi. lu mu wax tey dama naan ko mayonnaise kenn du ko dank. Eh. ah eh. tam Fadel xeer wa ca digg xam nga ni nawet jaaxalu ko ndax foo ko fekk day tooy. xepp kay tooy xepp ñun xam nga kan la ñuy alxuraan la. Baye Sidi Mbacke alxuraan la. biir jàmm bi ndaw ñi fi ci anam yëpp. wallaahi barki Serigne Touba. man Fallou Sauveur. biir ginnaaw raay laa dëkk Enda. xam naa la lépp ñàkk ca rek nga xam. mais nu ma mel jàmm gën ma ko def. ndax ci Baye Sidi ma. balay la jërëjëf. li Touba Thiam def li nga doon. te Baye Sidi Mbacke alxuraan li ma doon. moo ma ko def man Fallou. yàlla na la balay Sidi Mbacke ma koy ñaanal fan. kii moom kenn. daa ñàkk ci ñaar. booy ab di teg yàlla yàlla dugal fanam référence bi jàmm ma doyukaay la fi